duwaat yeneen ambition dina am ci yenn leader politique yi nga xam ne taxaw nañu pour ñoom jàpp nañu ni war nañu nekk président de la république mais ñu fa 2024 la laata boobu ñu ngi ko doon wax sànq dem leen jëli carte électeur dem leen jëli carte électeur ndax mu ngi nekk en souffrance si euh, commission yi dem leen jëli ndax nag dimanche yàggatul ñaar ñetti fan ñeenti moom moo ci des te nag benn arme ngeen am moo di seen carte électeur bu fekkee bëgg ngeen la ngeen di jàmbat seeni i jafe-jafe mu daal di am ak saafara bu fekkee bëgg ngeen ay député du peuple xam ngeen ñi ngeen di tànn ndax nag euh, seen i koñ wala seen i dëkk foo manti doon euh, yéen a ngi seen i jafe-jafe bu fekkee ña fa leen ñëw waxtaan ak ñoom wax leen programme am ngeen si ñoom dem leen ngeen sànni leen seen carte mais bu leen toog seen kër croisé seen bras si ñii di tànn député yi dem assemblée nationale waaye bu leen bokk si ñi nga xam ne dañ naan mandat sama yoon nekku si dëkk bi nu mu demee baax na de metti na ba noppi bu mettee yéen a koy saafara saafara bi du leen lu seen carte jëri ko te bàyyi ba dernière minute yi ngeen di buuxante ci commission yi te foobaa ñoom Jacques Boor lañ fay fekk rek euh, sous préfet Djibi Diallo euh, c'est ça Faat. voilà ñoom ñi c'est vrai Yacine ñoom ngay gis ñu topp caravane bi daw rek. Mhm. te ñu si bëri ñu topp caravane bi daw te te prouve que ni ñoom ñi ci topp ñoom après dinañ dem voter ñoom i tamit. tu sais mooy li ma wax si aujourd'hui les leaders dans ces campagnes là dans ces caravanes su doon benn euh, Ousmane Sonko dafa taxaw ci biir caravane mu joxe comme consigne que képp ku bokk ci caravane bi na nga affiché ni yaa ngi sa carte d'électeur jël message boobu. wax leen ni li hmm. c'est ça ce qui est important c'est pas Mumbai bi c'est pas parce qu'il y a RTS wane ko wala Sen TV wane ko wala beneen chaîne wane ko mobilisation monstre mais mobilisation boobu est-ce que ça va se traduire dans les journaux c'est ça c'est-à-dire tu peux quand tu vois une mobilisation où il des enfants de de moins de dix-huit ans mu leen ñi xalaatuñu dem voter ji hmm. ça ne sert absolument à rien c'est hmm. peut juste pour l'image ñu gis ni bari nañu lool lu ñuy bari bari bari bari su joru élection yi doo leen gis parce que amuñu sax carte mais euh, concernant le, le retrait des cartes moom peut-être que c'est la communication qui a fait défaut aussi on n'a pas assez communiqué encore une fois surtout les politiques ce sont politiques de communiquer la woon c'est une bon euh, c'est sama avis la mhm. peut man sama idée la mais je je pense que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les hommes politiques actuellement muy du pouvoir comme de l'opposition ils ont suffisamment de têtes pensantes dans leur euh, dans leur coalition dans leur groupe pour voir quelle est la meilleure manière la meilleure formule pour eux de faire adhérer justement euh, les populations à, à leur euh, objectif politique mhm. euh, d'un côté comme de l'autre. Et mhm. pour ça, il faut nécessairement le retrait des cartes d'identité, euh, des cartes d'électeurs. D'électeurs, merci. Alors, euh, Mame Mbaye, nañu jàll peut-être ci revue des titres yi à la une tribune de des médias ginnaaw bi nga nuyoo sa mbokk moo li ba noppi ah. a kaay tribune dafa xëy ñëw ci Mbacke Baar Mbacke ak Euh, foofee sa diwaanu Mbacké jàppale ne kon démb caravane bu Bougane Gueye Dany bi nga xam ne sumb na ko euh, te mu yëngal Alioune ba muy wax ne kon Bougane warul bokk ci li campagne bi moom nag démb mi ngi woon sa Touba Mbacké dem na ca Mbacké foofee nag tapis rouge la ñu ko lalal gis nañ nanu ko teertoo mbooloo mi topp ca ginnaawam euh, di ko xam ne nag fii nga teg sa tànk foofu la mhm. Bougane Gueye Dany nag kontaan la fa def fëgg na dënnam la mu xam le moo di tànk Sénégal mu ngi koy soxla bi yeboo ñu xam ne moom mooy doon seen taalibe moom taalibe Sénégal lay doon dina si xar tànk tubéyam lépp lu yittewoo ngir Sénégal suqaleku dana ca xar tànk tubéyam waaye lépp lu mu gis ne kon dafay gaañ Sénégal dana def kéem kàttanam ba xeex ko loolu moo tax mu gis ne troisième mandat fii ci réewum Sénégal Macky Sall am ko ngaañ-gaañ la ci nguuruk Sénégal moo tax nag mu ne dana ca xar tànk tubéyam taxawal boobu la caravane moom nee na nag pour le Sénégal est sans faille mon engagement loolu moom euh, kenn dootu ko weerante moom Bougane Gueye Dany loolu la xam le Cheikh Abdou Bara Dolly nee na nag lii buggaan di xeex moom dafa mel ni daf ko fekk sa si xeexam ndax moom xeexam ñëpp xam nañ ne bokk na ca euh, troisième mandat bañ am fii waxu sa troisième mandat mais troisième candidature bu euh, président Macky Sall moom moo fi dul am euh, moom Abdou Ba Mbacke Baara Dolli gis nañ fa démb tamit Abdou kii Abdou Mbacke Ndaw ki doon naan tàccu leen. tàccu gis naa ko si caravane yi démb démb laa koy doog a gis <laughs> Abdou Mbacke Ndaw <laughs> bi mu wootee fii femme bi jékki-jékki gestu tàccu leen <laughs> voilà Mame Sidi boo ñu ko mënee may fii ah ñu gis euh, <laughs> Bougane Gueye ak bi nga xam ne moom la duggee foofee démb sa sa sa sa Touba euh, xam nga moom gisee nit ñi bari rek xol bi dafay sedd gis nga Bougane nit ñi dar ko euh, mu nu mu toogee nii moom ah gis nga ko boo ñu mënee may son bi également tamit as rek ñu dégg dégtal ko gars yi en attendant voilà Bougane Gueye Dany ak nag Abdou Mbacké Bara Dolly moom moo nekk nii euh, ku si nekk distribuer li nga xam ne moom mooy flyers yi euh, moo xam bu wàllu ak bu gëm sa bopp yeewi wàllu ak gëm sa bopp voilà di euh, askan wi topp leen lool nag gis nga leen nii mhm. fësal seen engagement jëm ci non à un troisième mandat bu président Macky Sall tu sais euh, ils ont bien choisi l'endroit où ils sont passés démb ñoom ñaar parce que gis nga boo jëlee corniche sur Touba di jëm garage Daaru li fa nekk ci ndox booru Daaru Marnaan à droite comme à gauche ba léegi ñu ngi ci ay inondation am na ñoo xam ne moom foofu moom mënuñu fa sax jaar ba léegi ndox maa ngi ñoom noonu lañu jaaree euh, ci jëm ba ci jaaykatu ñi jaay ay mangoog yooyu ci ci ci tali bi ils ont bien choisi l'endroit où ils sont passés. nga xam ne fa la méttee quoi nga xam ne askan wi ñu ngi nekk ci ay ay jafe mais ñu son bi ñu xool wala jàppandiwul. Mbacké voté leen intercoalition bi di wallu ak yeewi ñu jële fi Benno jële fi Macky na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem a dem na dem na dem voilà gis nga mobilisation bi nga xam ne def nañ ko mbooloo mi topp leen def ndiiraan ci li nga xam ne rek moo di euh, ki nga xam ne dafay bañ président Macky Sall di ko fay am yéen a kaay euh, des médias bi dikk na ca euh, ci euh, xëtu yaatu waaye également Yewwi Wallu bi ñu gis ne kon nag foofee sa Pikine xar na ñaar xar na ñaar ndax ñoom doon nañu daan xaafu ñoom Aminata Lo Dieng ndax moom ak ñeneen ñi dañoo jàppoon ne ñoom Cheikh Bamba Dièye dañoo gis ne biñu demee ba war a defal def seen communication yenn poster yeex yooyu dañ si retiré ñoom seen i image mhm. te loolu nag moo leen metti ñu bëri doon jot ne ñii ëllëg tôt ou Euh, ci queue de poisson la ñuy mujj et finalement loolu la ñu gis. Aminata Lô Dieng en tout cas moom euh, war na ginnaaw waa Yewwi coalition yi wàllu ba pare nag nee na bu ñu leen boteel moom nee na képp ku bëgg amina Lô Dieng képp ku nekk militant tam képp ku nga xam ne rek euh, moom ci boppam si sympathisant am nga bokk jàppal ne woo na la pour nga bañ a boteel coalition wàllu Yewwi Aminata Lô Dieng quitte le navire et appelle à voter contre l'intercoalition Yewwi wàllu foofee sa Pikine kon nag moom war na leen euh, euh, euh, ginnaaw ñu gis ne également il n'y pas de problème de disponibilité du fichier électoral loolu Amadou Ba moom moo ko xamle parce que nag waa coalition wàllu Yewwi la ñu xamle moo di lii di fichier bi jotaguñ si jotaguñ si te nag article onze li mu wax avant 15 jours avant maanaam ñaari semaine avant jour vote bi war nañu jot ci li nga xam ne moom mooy fichier bi waaye loolu nag suuf soo àndi na ci ay leeral source A voilà andi na ci ay précisions yu leer nee na parmi les cinq coalitions yi nga xam ne euh, ñoom ñoo euh, euh, récupérer seen i fichier électoral bokk na ci wàllu Sénégal. Hmm. wàllu Sénégal jël nañ seen bas benn ci ay leeral. Hmm. ñaareelu leeral ba moo di fichier électoral bi disponible na. donc turi candidat yeex yëpp ñu ngi ci biir 15 jours avant le scrutin fekk na lépp yemb na waaye li nga xam ne moom mooy précision bi ci mag mooy mandataires yi ci boppam. Hmm. ñoo war a dem jëli ko. aywa du dañuy dem fekk leen fi ñu nekk ku nekk ñu lay distribuer sa sa sa fichier électoral. Mm-hmm. non les mandataires ñoom ñooy dem mandataire coalition yi. Mm-hmm. dem jëli ji fichier électoral comme ku toog naan fichier bi jotuma ko c'est parce que sa mandataire demul jëli ko. demul jëli ko te ñoom xam nañu ne nee nañ manque de maîtrise de la loi électorale par les mandataires a fait que le responsable des opérations électorales de Yewwi soit passé à côté de la plaque. ki nga xam ne nag kon moo yor lépp lu soxal wàllum élection ci euh, yi coalition Yewwi Askan Wi xëj na moo xamul ne moom moo war a jëli ji fichier électoral bi waaye nag bi yeboo ñu xam ne fichier bi disponible na 15 jours ak euh, léegi donc nag ku jëliwu sa fichier ci yow la yéenekaay bi di source a moom moo andi ay leeral euh, ci lool ñu dikkee également ci coow la nga xam ne moom moo am sa Médina ñetti doomi pendanaar yi Seydou Gueye Bamba Fall ak ki nga xam ne nag moo di Cheikh Tidiane Ba ñoom ñetti nag gis nañu kon seen meeting bu mujj bi fanta siro fasanteeg sikkim la mujj tey xeer euh, concert xeer gis nañu Alioune Ndoye bi muy def déclaration vidéo bi dama ko fàtte bi moom fu muy waxee yeggaliwul mu mel ni kuy capté ay xeer <laughs> nga gis militants yi di ko daw di ko song non vidéo boobu dama ko fàtte andi ne ko si gën ndeysaan am na ah? kenn si dañ benn ah, xeer am na ñuy jéem a capter xeer yi xam nga responsable politique buur la waaye ñeneen ñi nekk ci wet gi moom lu dara daal ci responsable dañuy daw aakimoo ko alors euh, vidéo bi malheureusement jotuñu jotuñu ko ak di mais gis nañ ko en tout cas lu mu ci manti doon sànq maa ngi koy dégg Fabrice nee na euh, xeex bi en tout cas euh, du xeexu parti socialiste waaye xeexu APR la donc seen cuisine interne foofee sa Médina ñu jàll ba tey ci li nga xam ne rek moom moo di yéenekaay yi Amadou def na bilan ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ndax Amadou Ba kenn dégg ko woon nag ci ci ci ci campagne bi ba ci mujj yi la ñu commencé gis Amadou Ba di génne di def li nga xam ne moom mooy ay sortie eh, di def communication jëm ci ah, campagne bi kon Amadou Ba bawul ñu doon wax ne kon Amadou Ba neexul ba neex waaye kenn santiritu ko wala peseetu <laughs> Amadou Ba bawul Amadou Ba mu jëwul ba ndax nee na nag fu mu nekk nii wàcc na si terrain bi dikkee renfort Amadou Ba mu jëwul ba <laughs> de Barthélémy Dias sax Ousmane euh, Sonko ñëpp gis nañu ko ñoom ñaar na fu ñu jaan di ràng leen di topp mbooloo mu sakkan moo leen di topp Barthélémy Dias Ousmane Sonko foofee sa Médina dem nañu fa ñoom ñaar battre fa campagne euh, foofee nga xam ne nag mën nañu fa la ñu waxee ne kon fichier électoral ba fii disponible agul mm. ñoom ñoo ko wax foofee la ñu yëkkati la kàddu gis ngeen leeral yi ci bi suuf euh, waaye laaj ne laaj nag jàllaa bi il faut nga jox ñu ci waa jàllaa bi yi nga andi bi yi nga jële màkk nii il faut nga jox ñu si <laughs> Hadj Mansour. delloo naa ziar ça va. alhamdulilah. enfin. oui. alhamdulilah rabbil non moom kay tubaarkàlla. ah tubaarkàlla. ne ko tubaarkàlla rek. ah macha allah xam na suñu yos yeeg ñun di. ah suñu yos mi yeeg moom mi. te de parfum mi ngeex moom. Mhm. démb gis naa tàndarma yi neex yi mu andi. ay léegi la masuma ko lekk. macha allah. gulet. bëgg naa ko kay man nay neex rek. Yaas bëggul lu naqari nay neex. damaa wax <laughs> <laughs> ne Léo waxoon la moo waxuma ci kii bi waxuma Léo <laughs> maa jox boo xam ne man man parfum rek laay doon ah biyaay biyee mu dem mu grise Mamadou Fofana ma may neex na bës ah du ñàkk ah bu ah, Mansour Sy Djamil ah, nee na moom nañu votel Benno Bokk Yaakaar hmm. waa Bëtu Ñàkk ñoom nee nañu joxe nañu seen consigne nañu votel ki nga xam ne ñoom ñooy waa Benno Bokk ah, Yaakaar euh, campagne bi yeewi nag Alpha Bayla Gueye bu coordonnateur bu cadre de Benno Bokk Yaakaar ak bu parti socialiste moom dafa jàpp ne campagne yu daal moom seen campagne bi yëpp wax lu dul dëgg la moom noonu la ko euh, gisee Benno compte les coups guéguerre au sein de l'opposition gis nañu ko opposition bi ak defante bi nga xam ne ni ñoom si la ñu euh, sumb gannaaw ba yenn ci kàddu jibee le vrai journal dafa ñëw ci scrutin majoritaire fii ci diwaanu Dakar guerre socialiste yi wax na dëgg nag guerre socialiste la fii ci Dakar euh, diwaanu Dakar ndax nag ña bokkoon famille démb ñi nga xam ne ñoo bokk seen ak cosaan tey ji ñoo fës ñoo def front jàkkaarloo baat lañu jaar parti socialiste la bawoo Alioune Ndoye parti socialiste la bawoo tey jii ñaari socialiste si ñoo fës keenee defante ñoom la ñu defal aarenu Dakaaru Ndiaye ngir ñu fës keenee def combat euh, te kii nag renfort am euh, moom euh, Alioune Ndoye sa wet ga Bamba Fall socialiste Barthélémy Dias gis nañ ko démb ma Ousmane Sonko ni ñu battre campagne fii ci Médina Barthélémy Dias moom it renfort am wax nga dëgg Birahim xalifa Sall donc kii am na renfort xalifa Sall socialiste Alioune am na renfort socialiste Bamba Fall donc guerre socialiste la Ali Ndoye Bamba Fall contre Khalifa le Barthélémy Diaz le juillet <laughs> affiche bangok ane kan mooy jël ndam li tontu li bu 18 heures jotee lay doon. est-ce que duñu woo kii. ak Ipongaari. instant boo ko mi ngi plateau matinal. waaw nga dëgg ñoom fekk nit nag. mais boo ko woon léegi mu décroché la. <laughs> non nga dëgg Ipongaari la ñu koy jox. Ipongaari ba ñu jàll. ayca ayca Khalifa Sall contre Alioune Ndoye Bamba Fall. combat bi 18h la 18h30 ñu xool ñu commencé xool tendance yi fu mu féete man boobu moom dama koy suivre nii. Mm-hmm. boobu moom il faut ma suivre que ñu xool combat bi ni muy mujj parce que nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy combat élection législative yi aar Sénégal daal ndekete ñu bëri dañoo jàppoon ne mooy troisième force politique mais neexul ba neex mais euh, seen toogaay dëgërul de buñ sukkandikoo ci yenn ci analyse politique nee nañu dañoo yoru torop mooy école yi nga xam ne boo fa demee dafa am élèves yu nga xam ne dañuy ay trop mais dañuy yaru dañuy ba ragal mu ngi nii classe yi nga xam ne dañuy toog rek ci classe bi nekk ci ginnaaw rek alors que ñooy crack yi jàngakat yi civilisé ak ragal du benn <laughs> Moussa aaj il faut ngeen yëngal. xam nga ñii ñoo nekk faw sama ndaw. <laughs> taw fee analyse yooyu analyse yooyu analyse ni mu yomb ni waa analyse politique yi professeur Moussa Diaw Amadou Mamadou Sy Albert Bakary Domingo Mané les forces vives prônent des élections apaisées ñoom daal ñu ngi woote jàmm. ñoom jaar jënd nañu galaas ñoom ñii ñoom Abdourahmane ceex Thierno Bocoum euh, euh, Thierno Assane Sall gis nga leen ni euh, affiche ñii xam nga ne oote ñu guerre mais nag. affiche bii waaw mais kenn ku ne sa wàllu histoire def nga njàmbaate goo xamante ni. ay borom bopp lañ ñu <laughs> ay borom bopp la de yeneen i borom bopp. Mm-hmm. yeneen i borom bopp ci Sud Quotidien. législative 31 juillet nee nañ présidentielle la bu nga xam ne ni waxagul turam législative yi présidentielle bu waxul turam la gis nañ fi ñoo xam ne ni njot nañu ne ñii bu ñu demee 2024 ñoom dinañ samp seen nënd kenn si ñoom Ousmane Sonko ñëpp xam nañu ne waa Pastef dañ naan dafay dem présidentielle kii di euh, Abdourahmane Diouf aar Sénégal ñu bëri gis nañ profil am baax na peut-être Thierno Alassane Sall également profil am baax na Khalifa Sall profil am baax na président Macky Sall profil am baax na Bougane ngi naan ah ah bokk ci de bokkul. <laughs> ana moom lu tax boolewuñ ko ci. Bougane. ah Sud ko ci liste bi waaye moom fi mu tëdd de maam mm, mm, profil bi baaxul kii di euh, euh, Karim Meïssa Wade sa Qatar profil baax na en tout cas. avant Gouba Ngok ci présidentielle bi nga xam ne non Bougane ko wax troisième mandat lay bañ. voix du succès moom mooy Amadou Ba fu mu nekk nii wàcc na si terrain bi ngir sóobu ci li nga xam ne moom mooy arène bi moom it mi ngi ci guerre bi Bougane Gueye Dany ci le mandat nee na nag mi ngi pare ne Yewwi ak Wallu sa Touba ak Mbacké fu mu ci manti doon en tout cas Touba Mbacké nee na voté leen coalition Yewwi Wallu temps bi jeex na Yacine. waaw ayca kon nag ñu jeexaleex ban ana ana ana Odia. ana Odia ana Odia. na tey. Oja ñëwul ñëwul Oja ñëw na kay Oja moo nekk nii xeex ba ca Medina landiwaat andiwaat mu nekk nii gis nañ. xeer yi xeer yi jolli Bamba Fall ki ci digg bi nii Messi la Cheikh Ba Seydou Gueye ngi nii Anto Alioune Alioune si moom mi ngi taxaw yor para parapluie xam nga ni ko waree xanaa paratonnerre lay doon. pour bañ eh, xeer dal ko. <laughs>